wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat ni mu koy faral di defee saa su nga xamee ni kon jub nañu xew-xewu diine commission sociale bu Touba ca kanam te Serigne Mourtada Mbacké mu Serigne Abdou Fatah jiite ko fàggu nay koppar yu takkoo takku wut ci nag ak la muy àndal yóbbu ko ci kaso bi nga xam ne moo fete fii ci Mbacké ak ba nekk fële ci Diourbel soxna Ndeye njaay Manel bokk ci kilifa yi Touba ca kanam foofee ca njaareem daal di ci Ndiaye tegtal. xanaa di am rek di am mu yaatu rek moom tàmbalee mu fu mu yem ndax nii ngeen duggee Jurbel ñëw ki social màggal indi ko fii ci prison bi ànd ak sëñ Mourtala ibnu sëñ Abdou Fatah jàmbaari social te noonu ngeen koy duggee ci daaray kaamil njaareem loolu moom daf ñoo sagal daf ñoo siggil daf ñoo dimbali bu baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne loolu ak yëg la ak itte te loolu rek la liggéeykat bu soxla ndax suñu jaayanteeg Serigne Touba dëgg la Serigne Touba la ñuy liggéeyal waaye yëg gi ngeen ñu yëg man mënoon naa ñàkk ndax mënoon ngeen ne sunu bopp la ni liggéeyal ndax Serigne Touba ku koy liggéeyal sa bopp ngay liggéeyal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax tey sant bu baax tey sakkuwaat ñaan gi ngeen ñaanal ñu bu baax liggéey bi sax te ñu yëg ko te buñ ci yëg sunu bopp te buñ ci jayu buñ ci jaayu. muy jëf ju rëy ju nga xam ne kilifa yi nungu sin yooyee rafetlu nañu ko lool rawati ñi nga xam ne ñooy saytu wàllum social bi. màggal gi moom ñëpp ci lañ bokk ñoom nag ñu leen waa Touba ci kamal kanam fegul administration pénitentiaire ah bay ci say oom jaarale ko nag ci prison Diourbel yi jaar Mbàkke ñëw ñëw Diourbel Diourbel nag mooy chef région de région mooy chef de région ñu ci sant nag ci turu directeur bi nga xam ne directeur Pouy bu mag Diourbel ci turu IRAP bi nga xam ne moo nekk Thiès jiite prison région yi ak ci turu DGAP le directeur général de l'administration pénitentiaire ak nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant kër gi yëpp ak nag pensionnaires yi nga xam ni ñoo fi nekk di góor di jigéen di ndaw sant nañu bu wér a wér ndax kontaan nañu tey lii ngeen def dalal na seen xel ku ne xam na ni détention xaw na doy waar mais nag dañ ni humanisation des prisons ci humanisation des prisons bi nag ci la Touba ci kanam inscrire commission sociale bi nga xam ne mooy dox ci yërmande dox ci yëg dox ci wéttali dox ci àndandoo kon nag ñi ngi leen di sant yéen ñëpp sëñ bi ñi ngi lay yóbbante kilifa yi nga xam ne ñoom nga bokkal Touba ci kanam bépp bi nga xamee nag suñu sëñ Muntaxa ah suñu waajur boobu nag ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax tawféex ak taysiir di sant nag suñu jëwriñ soxna Ndey Njaay maneel ci njaareem ak ñi mu àndal ñëpp ànd na kook ñun ci kub taalibe ànd na kook ñun ci yërmande am na kook ñun ci yëkk kon nag yàlla bu mu nekk suñu mujjee lu màggal sant nañ ñëpp gërëm ñëg ñëpp di jéggalu ñëpp Mbàkke baal la Serigne Mourtada Mbacké ibn Serigne Abdou Fatah moom mi nga xam ne moo jiite commission sociale bu Touba ca kanam dikkaat ci jëf ji nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy def saa su nga xamee ni kon jub nañu ay xew-xewu diine rawati màggal dafa bokkoon nag ci li nga xam ne moom lañ sumb ci màggal gi ndax ay yu baree bëri dañ bëgg a def ci màggal gi eh, da cee bokkoon nag eh, ñëw nemmeeku si suñu bokk taalibe yi nga xam ne nii caabi da leen a ginnaaw tàmbulee ci kaso bi nga xam ne moo nekk mbakke ñëw àggalee ko ci bi nga xam ne moo nekk Njaareem yëlla ji nag du leen lu dañoo gis ne eh, dégg nañ ci wax waxtaani Sëriñ Abdul Ahad mu wax ne sëriñ mag bi waxoon na ne yowmal am ay bis ëmb fa waaye sunu boroom moom ku xereñ la jamono ju màggal gi daan am bu aksee ñu nekk ca foofa danañ yëg ci seen bopp loo xam ne dañuy xam ne tey jii bokkut ak démb moo tax nag ñu xalaatoon ne kon ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna eh, am ñoo xam ne ni am natt leen dal ñu nekk ci caabi féetali ginnaaw ñooñu kat war nañoo yëg ne tey jii la bisub Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moom la sant la woote woon ngir ñu sant ko ci boroom loolu moo doon doonoon yëlla ji li koy firndeel nag mooy bi ñu demee ci eh, barab bi nga xam kaso bi njëkk a dem muy bu Mbàkke ci nga xam ne yàlla dafa dogal na ñu natt suñu borom natt leen ba nekk fa am na ku ñu wax koo xam ne nii nee na eh, xaw na faa yàgg xaw naa yàgg ci bërëb yu mel nii waaye nee na am na bis boo xam ne nii màggalug tubaa sombi sombi la añee nga xam ne keroog dafa xelam dafa li mu njëkk a dem mooy xanaa eh, xanaa xanaa murid Sëñ Tuuba yéeguñu ne tey jii la màggalu Tuuba mu doon lu lu yéeme loolu moo waral nag lu mel ni ñu koy def donte nag eh, kilifa yu bari ñu ngi def taxawaay yu mel nii léegi mu ngi yaatu lool ndax eh, tey jii ci Mbàkke ak ci ak ci njaareem ñëpp xamal nañu ne tàmbalee weer yi ba léegi ñoom dañoo fàtte na sax ñoo ngi ci ñoo ngi ci kaso ndax ndax bo bokki taalibe yi nga fi indi xéewal tàmbalee ko Cheikh Mamadou Mountakha ak mbooleem kilifa yi waaye nag lii daa doon loo xam ne Touba Ca Kanam da ko baaxoo def di ko jaarale ci commission sociale bi di xam xamle rek ne barab bee nga xam ne ñoom foofu lañ nekk jumbul kenn da ñun am nattu la waaye ñoom lañ gën a soxla woo mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti nekk ci seen liberté ñoo am ak jëg ci ñoom ndax ci askan wi lañ bokk te buñ génnee tamit ci askan la ñuy delluwaat te tamit génn kaso barab bee du barab bu mbugal waaye maison de d'arrêt et de correction lañ wax maanaam fu ñu corriger nit ki la ci jumte yi nga xam ne ni amoon na ko waaye du barab boo xam ne barab bu buggal la génn ci tamit téewul nga bokk ci société bi ndax gis nañ ne nit génn na ci ab kaso doon président de la république nit dën génn na ci kaso doon ab imam nit génn na ci kaso suñu borom def ko ci ay daraja yu gën a kawe kon li yonente bi waxoon rek ne unsur aqaaka daaliman aw masluman mooy li nga xam ne moo war a ñun ñi nga xam ne nekk ci ci bitti moo waral commission sociale bi dana def yeneen taxawu waaye yoo xam ne nii da koy am ci prison bee lu mel ne léeg-léeg mu def fa ay ñu am jafe-jafe fonds te li mu jiitaloon moo doon di wut ay yoo xam ne da leen di wideel barab yooya dem nañ ba ci defar fa ay fonds yoo xam ne dana tax euh, nekkin wu gën a yàlla defar nañ fa ay toilettes ay yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léeg tamit ñu nemmeeku ne gis nañ ne barab ba dafa tàng ñu defal leen extincteur yoo xam ne nii day génne tàngoor wi tey jii rek bi ñu demee yàlla dogal na prison bu Mbàkke ñoom dañoo xéewal yi ñu fa yóbbu dañoo bëgg ñetti fani màggal gépp ñu mën koo dund muy bu nee ginnaaw suba màggal gi ak bu nee suba la ak bisu màggal gi mbooleem lu ay berne yi nga xam ne dañ ko am suñ suñ kër yi tamit jëm nañ ko faa yóbbu li tàmbalee ci ndékki ba ci reer yóbbu nañ fa yeneen jumtukaay itam yoo xam ne dana tax seenu nekkin gën a gën a yàlla muy lu mel ne ay eau de javel lu mel ne ay ay saabu lu mel ne ay paani raxasu lu mel ne ay satale yoo xam ne danañ ci mën a jàpp lu mel ne ay ay basang yoo xam ne danañ ci mën a kuréel danañ ci mën a mën a julli ba ci sax ay wantuloo yoo xam ne nii dana tax eh, barab booba féex ndax ña fa nekk dañuy bari te léeg-léeg mu tàng noonu ñu ko defee ci bu Mbàkke bi bu njaareem bi itam noonu lañ ko fa defee ñoom tamit bëgg bisu màggal gi ñoom ñu dundee ko comme noonu waaye yeneen di ci des yëpp tamit def nañ ko euh, di ñaan suñu borom gën ñoo yokk ay xéewal ba eh, lañ yéene ca fële ñu mën koo def ndax lii ak àdduna ñu ànd ba àdduna yu tukki faw dana am ñu nekk ci kaso bi faaw am ñu nekk ci bitti ndax ne ni suñu borom bindee adduna la du caagi ne ku dugg ca kaso ba rek da ngaa tooñ ku dugg ca kaso ba mën ngaa a def dara ñu dugal la fa mën ngaa def dara tamit ñu dugal la fa kon ñun ñu ci bitti nañ gën a gestuwaat ñi nga xam ne ñoo nekk ca biir ci lépp lu leen mën a jàppale kon ñu ngi ñaan ñooñ ña nekk ñoom ñun fekk ci bar barke barab bu tedd bii nga xam ne nii ci leen tëjee suñu yoon wi ñu doon doxee ci barab bu tedd bi nga xam ne nii sëriñ bi ci boppam moo ko taxawaloon ñaanoon ko boroomam ba mu nekk ca géej ga muy lu loxoog tub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashabihi wa calbihi masjidi raxba masjidi raxba mooy mooy jumaa ji nekk ci nekk ci sunu ginnaaw nafaali la fii maa yomba maasaa xal bi wa ahlal jan ba mooy sorol yi nekk sunu ginnaaw noonu ko suñu boroom nangoo nag ba sëriñ bi eh, ci ak nekkam barab bi taxaw ñoo ngi ñaan ci barab bu tedd bi ña nekk ca barab ñi cay bi féete ginnaaw yëpp sunu borom dimbal leen ban delluwaat ci njaboot ga ña nga xam ne tamit xëy na lañ doon doon tiimaal ñoo fa nekk sunu borom def ci ñoom ak jub ba buñ génnatee ñu def loolu ñu defoon ñun ñu nekk ci bitti te xamuñu kañ la ak naka la itam ñun suñu borom saxal ñu suñu ba yàlla buñ def lu ñuy lu ñuy delloo fële loolu nag moo waral ñu tëjee ko fii nga xam ne nii mooy ci pàkk bu tedd bi ci bis bii ñuy dëdmal si muy màggal di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar sëriñ bi mi ngi ko njëkkee njëkk defee fii ci njaareem barab bi ñu nekk fii la ko sëriñ bi njëkk defee ginnaaw bi ko sëriñ bi defalee boppam santaane ko Cheikh mu Moustapha mi ko fi wutu woon yàlla na borom gën a yokk seeni i ngërëm wuutu ko ca di ko defee noonu ba Cheikh Mamadou Fadal woote ko ba ñëpp di ko defee Touba. tey ji itam ñoo ngi àndoon ak waa commission sociale bépp ci eh, vice présidente soxna Aram Sock soxna Koumba Ndiaye Cissé ak sëñ Bara Fall mi sëñ El Demba Cissé sëñ Mbacke Dia ak sëñ Xaadim Dieng expert ak soxna Ndeye Ndiaye Manel mi nga xam ne moo féete njaareem gi jaaroon nañ njaareem te jëm a jokkoog soxna Dior Gaye ngir mu ànd ak ñun ak madame ñaa ak mboolem xam ne ñoo ñëpp rek lalu ko lu dàkk ngërëmul sëriñ Tuubaa yàlla nañ ci tasee ngërëm ak tawfeexam te yàlla yi yàq jëf yëpp yàlla nañ ci suñu borom musal barki Seexul Xadim مثل اسمها بجاي خير من أبات